باق كريم جل أم مثالي وجأني ما غاب عن أمثالي باق كريم جل أم مثالي salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne ñooy suivre suñu site internet Hibaayil Khadim TV ci biir réew ak ci biti réew ngi leen jaajëf lu baax a baax mu ne ñoo ngi fii ci bànqaas bi nga xam ne ñoom lañ tuddee bànqaas bi nga ne mooy Baye Fall yi Cheikh Moustapha yi di waa restauration ñu taxaw ak ci suñuy jëwrin ci ñu koy wax sëriñ Lamp Serigne Lamp ñu ngi lay nuyu waaw ah, ñoo ngi lay gis fay bu baax di leen siyaare jërëjëf Serigne Lamp Serigne Lamp mu mel ne ñoo ngi ci bis bi nga xam ne mooy 4 mars gi noo leen dundee bis bi yéen waa organisation waaw moom ci sant yàlla bu baax ci boole gi ñu ci boole ak may gum ñu may ak wér pour ñu mën ci liggéey sëriñ bi mu mel ni moom comme ñun ni ñu ci daan taxawee rek mooy li nga xam ne baay sant nañu ko ci muy defar ay xéwal euh, pour nit ñi di ko xéwloo euh, ci loola lañ nekkoon ba mu toll ñu ngi toll ci sottantal gi ba ñu ngi ko commencé mam ni di yóbbu kër sëriñ ba. jërëjëf sëñ Lam ji kàddu yooyu naka ngeen def bi ngeen yëgee ne 4 mars gi jëf si na waaw moom comme noonu ma la ko wax rek moom comme waa waaj ndax comme euh, lii defuñu ko tey rek def nañ ko ay yoon yoon te xam nañ maanaam ni euh, ñun la yàlla dogal maanaam loolu ñun ñoo ko war a def dañ ciy daje waxtaan ci maanaam ni takkutoo euh, doon benn xam ni lenn rek moo ni may ndam mooy jëwriñ ñi am seen bëgg ndax bu jëwriñ ñi amee seen bëgg sëriñ bi am ak bëggam ci loolu lañ nekk jàpp ci noonu ba suñ borom defal ñu ci tawfeex ndax depuis barki dem ba tey gaañi ñu ngi ñu ngi liggéey bi ba moo na may résultat bi ñu am nii pour mu mën a teel a sotti loli mo mo na ko may waaw waaw programme wañu manam ni euh, liñ ci togo mi ngi toll ci inton euh, di jurum fukki mbana mm, ak yim wara andal mm, commission restauration yit comme mm, nonu ñu lako wax ñom ñoom liggéey maîtriser ñu maîtriser go xamni danaka fu ñu wax ni nangam lañ soxla rek danaka li ci wara dem lépp maam mën nañ ko euh, da da da di mën ki kii fan fan fan fan toll waaw di sant bu baax a baax dal jërëjëf Serigne Lamp kon mu mel ne ñu ngi ci waxtu bi dana xaw a xëccoo di nga soññee ci nga xam ne bànqaas bi nga xam mooy bànqaasu organisation waaw bànqaas bi moom maanaam ne ñi di ci soññi suñ bopp di ci soññi maam képp koo xamante ni si yàlla dogal nañu war ñoo xam ni ndaw moo koy def ku nangu moo koy def mm, ku jaayante dëggin moom moo koy moo koy def ndax liggéey la bopp pay ga nekk moom gisee su ko fii ëllëg la te jamono ji ni mo demee nga xam ndaw yëpp dañu jëg mom ngir wut alal ku amul pass mm, pass deug ak japp japp japp deug pour nga man ca dox du yom ndax euh niñu bare bare di waxee waye dal ñu xam dal lulul mom manam ni mom moko gën ñi ñaan sëriñ bi gën ñu ci dimbali gën ñu ci kàttanal ci barkeb sëriñ bi waaw. fay nuyo di len sant di len gërëm di len siyaare di ñaanal Cheikh mustapha Mbacke mohammed sa borom bayiko fi ci yagal ko ci wéral ko ci kàttanal ko lool noonu lañ koy ñaanale soxna maam sa Mbàkke sunu bàjjen sunu jëwriñ sunu sëriñ ko ñaanal mu yàgg fi ca wér lool ñaanal mboolem ab ahibaayal xaddim nga ñaanal mboolem koo xamante rek yaa ngi bokk commission organisateur di leen ñaanal yéen ñi taxaw di wax ak ñun te di leen jaajëfal ci teew gi ngeen teew seet si ñu ci di leen nga xam bis bi ñun daaw ban siyaare sëñ bi ba walbatiku rek lañ commencé waat di waajal bisub ren bisub tay bi lépp loo xamante ne ay matukaay la rek jël nañ ko ci ñu nag ñoo ngi ci waañi wax dëgg yàlla ñoo ngi li ñu warit ndax xam naa ne keroog bañ siyaare sëñ bi ba waññeeku ko daaw bañ walbatikoo ci waajtaay bis bi ci la ñekk ba bis bi ak seeg jàmm ñoo ngi ci waañi loo bëgg a sun program ci wañu da moy tak taxaw dembu ba legi man na ni ñong ci wañu wax dem biñu ñu xeyé lañ demone marché di dugg di andi di tek ba ngon jot ñu dajé fi ñun ñepp comme so organisateur di xol suñu bagage di défar suñu bagage ndax bëgg bis bi té añ bi téel bañ mëna téla téel suñu señ bi siar ko bo ba legi gis nga biñu xeyé ñen fi lañ fanane ñi ci def bi ñu xëyee lañ xëyaat ñëwaat gis nga ni taal nañ togg nañ ba sóor nañ ba yak moon dese di xaar ndigal pour ñu yak nak ñun ci ndigal rek ci lañuy dox hmm man yëg yëg lan ci am yàkkamti bis bi ñaan bis bi aksi ñu fas ci def suñu doole ak suñu ñaq kontaan ci sunu xol sedd guy ndax bis bi lañ doon xaar ci agsi na biir bi la bis bi lañ doon xaar agsi na sunu xol sedd guy nag ndax amuñu lu may Cheikh Moustapha mu digal duñu digal ñuy def mu duñu tere ñuy bàyyi ak soxna Maam Bousso kon bis bi buñ ko tegee ci sunuy loxo foo ci xol suñu mbégte rek fees weesu na ko ndax bég nañ lool ndax loolu bu ñu yëkkatee bi teg ci sa loxo wala kala yaakaar ba teg bis bi sa loxo ca nga bokk kook moom. loo ca def rek xeem nga ko sum xol sedd na guy. xanaa soññ sama mbokki organisateur rekk di leen jaajëfal di leen ñaanal seenu loxo saa yàgg seen digg ñaanal sëriñ bi ak soxna si yàgg sunu kanam yàgg ñoo jox ndigal ñu yàgg koo jëfe waaye man sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp commission bi loo teg soo organisateur boo leen nee defal ñu def soo leen nee jëlal ñu jël ndigal rek la xaar ñoom ñëpp ñu ngi xaar ndigal may sant Mourtala Kare suñu jëwriñ sant euh, Lamine Fall sëñ Mbacke Ndaw min euh, kii Lamp Diop ak sëñ Mbacke Ndaw miñ ma booleel ci waañ ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ñun ci góor ak jigéen nekk ñun ci waañ liggéey bi nañ koy njëkkante ci kenn ku nekk la nga coow nanga ngaa fas yéene mu baax na ngaa fas yéene mu mel na mu war a mel bu ci yaafus dee am daal mel na man la Mathieu mu Ndiaye waaye ñoom ñëpp ay ay ay ay jàmbaar lañ daal ay jàmbaar lañ aw ma seen fay wax dëgg yàlla ca xeebuñu ma su ma leen nee yëkkati leen ñu yëkk suma leen ne teg leen ñu teg su ma leen nee taal leen ñu taal te bu ñu toggee macha allah doy nañ ma lool ci waañu doy nañ ma lool ma sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen soññ di leen ñaanal ndigalu sëñ bi soxna si lépp lu ñu digal rek yal na sama borom may wér-wér la bu ñu digalee bu ñu gëstoo fekk ñu def lañ ñu doon def lool